maa ngi gis Serigne Touba sañ sax merci beaucoup sama gars yi na ngeen maa ngi leen di fay. lu lu expliqué tey teewaayu fii. ah tey dañoo kontaan suñu bijou national la ñu inauguré muy mu tombeek sama gars yi gagné coupe d'Afrique loolu dañ koy rafetlu dañ koy rafetlu. mais noo gisee stade mi ngi ko tuddee kii di suñu président ancien président Abdoulaye Wade. waaw suñu président def na geste bu nice loolu lu nice la. day bokk ci suude Sénégal ñun ñëpp benn la loolu day participer ci euh, ci euh, ci ci lu baax li fi am ba pare mooy euh, jàmm bi fi am Sénégal loolu da ciy participer lu bari ñoo koy remercier bu baax di ko féliciter aussi di féliciter le président Abdoulaye Wade. mais ay si la nekk temps yëpp sénégalais gën ñu ko gis. waaw waaw sénégalais gën nañ ma dégg nag damay dama làqatu di joob dañ nekk di joob. looy préparé <laughs> album wala préparé waaw ñoo ngi préparé affaire yu tàng pour pour fans yi waaw waaw. salaamaaleykum Titi. mi maaleykum salaam. lan moo inspiré tey fii teewaay. waa tey mbégte la tey bésu fête la suñu président na ñun ñëpp dañu génn ñëw enjoy ànd ak waa Sénégal yëpp ñu ñëw bëggee inauguré stade bi waaw. ñu gis stade bi ñu tuddee ko ancien président Abdoulaye Wade est-ce que amoo surprise. ah kontaan laa ci def tey ñaan yàlla sax buñ ko mënee gën a tuddee waat. ay mbir yu gën a yaatu nii tamit sax suñu mbégte la ndax ah, daf ñoo uuf tette ñu wan ñu yoon yàgg gëm Sénégal yàgg gëm sénégalais bi mu doon du dëgg donc duñ def lu rafetlu ko. ñu toogal yàgg gis ñu titi ñu toog ba si yàgg titi daal di génnee benn single boo xam ne moom toj àdduna fu mu toll nii TikTok boo fa gisee dépassé na 500000 vidéo yi noo dundee loolu. waa gars yi dañ ma namoon dañ ma namoon moo tax ma indi leen dikkati naa moo tax ne da ngay gis sax même ci Saint-Valentin bi aussi indi nañ leen beneen sonorité musicale waaw parce que comme gars moo tax rek. mais Sénégal dafa lu bëri la am la amoon lu nam lu bëri si Titi mooy Titi grand théâtre mais maintenant Arena moo xew. Ah, est na moo xew de ah, waaw <laughs> bés bu ko gars yi bëggee rek suñu paree ñu dem ci rek problème waaw. mais avant boobu lan lan la réservoir yi mooy nekk projet yoo xam ne au court terme lay doon. waaw fi ni ne ñi nga war a defaat clip ndax euh, tout récemment single bi ñu mujjee defaat ci Saint-Valentin bi boobu na gars yi xaar vidéo bi bu weesoo loolu aussi ñu joxaat gars yi yeneen single rek. nga toogee lu yàgg di saan di gis musique sénégalaise. nan nga ko doon dundee est-ce que yàpp nga ne musique mooy comment moo ngi évoluer non musique léegi évoluer na rawatina léegi yaa ma gën a xam sonorité musicale am léegi macha allah musique dafa meññi et c'est normal mais sénégalais li ñuy xaar mooy au niveau international musique sénégalaise dem niveau au niveau international comme ni ko suñu papa Youssou Ndour yóbboo woon mais ba léegi dafa may dafa am lu ko téye ah waaw moom la ñu bëgg nag waaye xëy na lu jot ak yomb xam naa dafa jotagul rek mais bés bu jotee rek dina yomb incha merci beaucoup merci parce que lu ku day nag euh, président Ablaye Wade il il mérite tout mérité na lépp ci ci lu luñ ko mën a sargalee Sénégal parce que je pense que aussi le président a fait beaucoup il a fait beaucoup wi tey bu le président Macky Sall jëlee euh, stade bu tey nii mu ne def ko tuddee Ablaye Wade donc sénégalais yëpp nañ ci am mbégte bu baax a baax a baax. mais Aïda Samb gars yi ñu ngi ko gis Aïda Samb fa la toll ci projet yi. man maa ngi ci projet incha allah euh, fii ak du yàgg dara dara dara fii ak un mois deux mois au plus tard dañ gis Aïda Samb ak album bu bees. album bu bees est-ce xam nu mu tudd ak la ñuy ah fi mu toll nii moom du ma mën a wax bu baax du ma mën a wax si album bi nu mu tudd tellement que album bi c'est album la boo xamante ne nii y' a y' a de choses dedans ah bëri sonorité bëri lu nekk si biir donc on est en train de travailler là-dessus xool naka la ñuy de pour sortir l'album et que ba ku nekk gis ci boppam. est-ce que ay duo ay duo ay artistes yu mag yu mel ni Youssou Ndour pourquoi pas. bien sûr bien sûr album la boo xam ne dina bëri ay surprise incha merci merci beaucoup. Euh, vraiment suñu participation tey dañoo ñëw pour wane suñu suñu suñu mbégte daal loolu moo ñu fi ne en fait. alors ambiance bi tey nan ngeen ko fas yéenee dund ak sénégalais yi. xanaa kontaan rek béggewaat suñu coupe bi suñu stade bu bees bi alors di ñaan jàmm Sénégal di wax ni vraiment yàlla na fi jàmm sax jàmm sax law fi ba faw alors loo leen di wax Macky Sall ci cadeau bu mu ñu defal. waaw merci beaucoup merci monsieur le président si lii nii parce que li fierté la pour ñun ñëpp ah vraiment merci beaucoup. et merci rek di ñaan jàmb Sénégal voilà. ah xanaa noonu sénégalaise macha allah ñuy euh, inauguré li nga xamante ne Sénégal moo ko tax a jóg pour sénégalais yi la ñu ñëw rek ku si nekk ñëw rek fekkee ko. noo gisee isaar bi ñu tuddee kii di président Abdoulaye Wade. Ah, ah waa Ablaye Wade moom macha allah am na lu mu liggéey si réew mi donc duñ ko defal rek daf ko mérito macha allah. mais Sénégal yi bëri taay la ne ngay gis ñëpp a ngi laajte ana Adja ana Adja surtout série Adja fi mu toll. waaw série Adja c'est pour bientôt incha allah. est-ce que mën nga xaalis koy tey parce que parce que ñu bëri la naan est-ce que dina am si góor gee café c'est pour bientôt incha allah wax dara sax. waa dinañu ñëw incha allah waa. waa merci beaucoup merci. Abiba Abiba ñu ngi lay ziar. delloo ziar bu baax a baax. Euh, voilà dañ ma invité comme yeneen artistes yëpp ma ñëw mu doon euh, honneur tamit euh, fekkee inauguration bi participer ci tamit donc vraiment félicitations à tout le Sénégal vraiment on est très content stade bi macha allah voilà je crois que tey ñëpp a kontaan. ça s'est bien passé ah j'ai bien presté jàll naa ak maa ngi tamit seetaan sama moromu artistes yi donc ambiance daa ngi fi tout va bien. non mais c'est très nice ah on n'en vit plus personne ah. voilà là moom ñoo moom Eva <laughs> carrément. Abiba si Abiba mi ngi ci mi ngi ci aar bi mi ngi ci game bi waaw. yaa ñu ngi ci kawam. yaa merci. population bi nga xam mooy État du Sénégal État Abdoulaye Wade ñu ngi lay ziar. maa ngi leen di delloo ziar maa ngi békkee di leen kontaanee bu baax a baax a baax. tey lan moo waral teewaay bi fii waaw teewaay bi c'est comme tous les artistes hein, on est venu faire une prestation en tant que sénégalais en tant que citoyen et on est invité par le président de la république parce que moo invité artistes yëpp donc ñu ñëw joxe suñu participation rek mooy que ni ñun ay artistes lañ et yëngu ci wàllum culture xam nga te culture mënu ñàkk ci dara raison pour laquelle on est là. noo gisee stade bi. c'est magnifique. waaye c'est magnifique je suis très content et je suis très fier d'être sénégalais je suis très fier de mon président macha allah yal na yàlla def jàmm waaw. li nga xam ne chaque fois duñ meree rek dañuy yàq. waaw bon aduna ak loolu ñoo ànd ah. waaw euh, lépp loo gis ci benn lay tàmbale et je pense que euh, du yam ci lii ah donc y aura d'autres xam nga donc incha allah euh, nañ bàyyi gars yi liggéey ak seen sago rek et tout ira bien incha allah. Advice kenn dootu ko présenté musique mondiale Sénégal africaine tey nga ñëw fii Euh, salaamaaleykum avant tout maa ngi leen di euh, maa ngi leen di nuyu di leen sant vraiment di leen wax vraiment euh, jaajëf ça fait plaisir d'être la ak ak les plus grands artistes macha allah. Hmm, la seule chose à dire que vraiment kontaan parce que maa ngi jógee Mauritanie spécialement pour nu mu maa ngi jógee spécialement Mauritanie pour pour ouverture bi en même temps aussi pour sama concert incha allah rabbi ce 25 février au Grand Théâtre incha waaw grand stade bi c'est magnifique c'est joli j'ai même pas de mot à dire parce que euh, c'est c'est c'est nice machallah incha allah peut-être yee daal fitir incha allah bu soobee yàlla. da ngay da euh, fi léegi léegi. Euh, incha allah ce vingt cinq février. damay joué au Grand Théâtre incha allah rabbi merci beaucoup tey artiste maa ngi leen di fay bu baax a baax di nuyu ñëpp ñu ngi seetaan. lan moo kontaan ak fierté euh, d'être sénégalaise donc aujourd'hui c'est boo de voir ce bi nga xamante ne inauguration stade bi moo leen andi stade bu rafet bi nga xamante ne yàggoon nañ ko xaar mu ñëw tey ñu war ko inaugurer donc def moo lu dul kontaan. ni nga gisee tudd bi nga ko tuddee kii di président Abdoulaye Wade. waaw mu nekk tamit loo xamante ne tamit sentiment de de contenté am parce que Sénégal li ñuy wax benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar on est tous parents ñun ñëpp benn lañ te booloo mooy doole donc bu ñu gisee ñu tuddee ko ku mel ni suñu maam Abdoulaye Wade daf ñuy neex parce que nekk na koo xamante ne defal na quand lu bari dëkk bi te ñun tamit amel nañ ko njukkal donc tey delloon nañ ko njukkal boobu. lan nga doon dundee coupe coupe d'Afrique bi xam naa tiitoon nga def kii di Sadio Mané bu mu bu mu njëkk a raté bi noo def. non euh, bizarrement nag Sadio Mané en fait bon bi mu njëkk a tiré penalty bi man si yoon laa nekkoon mais quand même bi muy tiré penalty euh, série bi dama ne Sadio day dugal donc j' étais vraiment j' étais vraiment vraiment confiante. bi muy tiire man dama ne woon bokkuma woon ci ñi nga xamante ne dañ ne Sadio Mané day raté dama ne day dugal te bi mu dugale vraiment ñëpp kontaan nañ ah, yuuxu naa ba sama baat bi dee vraiment mu nekk loo xamante ne nii je pense que le Sénégal on avait besoin l'union des cœurs xam nga sa bonheur la euh, on en avait besoin pour un peu am beneen beneen départ boo xamante ne ah, dëkk bi daf ko soxla. merci beaucoup merci à toi. maa leen di fay. lan moo expliqué tey fii sa teewaay. ba ñëw rek pour teeru suñu taw bu góor bi suñu stade bu nice bi euh, on est juste content d'être ici aujourd'hui donc gisee stade bi ñu tuddee kii di maître Abdoulaye Wade ancien président du Sénégal ah loolu euh, dañ koy rafetlu rek parce que Abdoulaye Wade suñu Abdoulaye Wade la donc suñ ko tuddee benn stade c'est juste euh, bànneex la rek suñu wala projet yi toll fu mu tol nii projet ñu ngi si yoon ñu ngi ñëw ay surprise ay surprise la ay surprise la lii mais Carlou gars yi gën na la gis waaw gars yi est ce que ñoo bokk fi nekk fi mu nekk nii. Ah. yaakaar naa ne ñoo bokkul fi mu nekk. mais eh, mais gars yi ñu la bëgg maanaam fan si yéen ñoo gën gis kàddu waaw pour le grand public maanaam album bu bees ñi ngi ci ñi ngi mi ngi ci yoon bi. la ma waroon tey teewaayu fii loolu nga oh, li fi waral teewaayu gars yëpp rek mooy inauguré sa bijou nga xamante ne kuy Sénégal di fan sport war na war nga ci kontaan waaw. noo gisee tuddee bu ñu ko kii président ab Wade est-ce du bettaay. loolu ku ko wax ku ko waxul ñëpp ci kontaan Macky Sall euh, wane na ne Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar Abdoulaye Wade am na sagesse ak baaxu nangu ko ci jàmm pour ñoom ñu joxe exemple cette génération pour les générations futures ñu jàng ci ñoom macha allah bravo. mais stade bi gis nañu ko defar nañu ko Sénégal yëpp kontaan mais lu Sénégal yi bëri di mooy entretenir. waaw entretien nag moo gën a cher moom je pense que fi mu ne nii. Euh, toll nañ foo xamante ni jaratul ñu koy wax kenn je pense que li ci war dinañ ko ci def pour que mu continuer waaw. merci beaucoup j'en prie. merci. waaw plaisir ma doog a dugg see stade bi ça fait réellement plaisir et neex na ma ambiance bi nu mu mel et tout donc c'est la fête faisons la fête déggee gars yi wan la jeunesse wàññi leen violence bi liggéey leen parce que liggéey fayeeku la ñàkk jëriñu. projet projet ñu ngi si ñu ngi album bi. waajal a clip yu bëri waaj a merci beaucoup ay